car Ibrahima Sall bu ASRED ak Amadou Ba bu euh, Yewwi Askan Wi bokk ci parti bii di PASTEF les chroniqueurs habituels la ñu àndal Issa Tine Mame Birame Wathie ak Pape Mokhtar Diallo amadu ci yow laa dagge woon kàddu gi dama lay bàyyi nga continuer parce que justement lool la ñu war a waxtaane li ñu tuddee force spéciale ak xale boobu di euh, Pape Mamadou euh, Seck amadu après ñu ñu ñu ñu avancer waay. parce que il faut que nit ñi comprendre lan moo tax acharnement bi am. Mhm. waxu terrorisme. képp ku nekk Sénégal xam nga mooy lan. Mhm. ndax yàlla natt nañu Afrique li ñu wër fii yëpp muy Mali muy Niger dëkk yëpp xam nañ lan mooy terrorisme. Mhm. ba mu fa duggee amatuñ jàmm. mais c'est la première fois ab état Afrique jël ay doomam yu bokk ci dëkkam bëgg leen a jiiñ terrorisme c'est la première fois Mali nee nañ ay. nit ñoo daje organisation terroriste internationale la. Mhm. boo xam ni dëkkuñu fa sax. Mhm. ñëw pour nangu suuf ak yooyu. moom xam na ni loolu mënta am Sénégal yàlla dimbali nañu am nañ divers éléments loo xam ni l'islam confrérie ak nit ñi jaxasoo bu ñu jaxasoo ba nga xamante ni. Mhm. loolu mun fi am yàlla dimbali nañu ci. moo waroon a nekk un levier économique. ñu profité ci stabilité bi ak instabilité bi autour pour développer wu sax. moom mu ne déedéet mois de mars am na lu ma jàngal naroon naa cee ñàkk sama nguur ndeke. te man damaa fas yéene def troisième mandat ci la créé 2021 benn loi antiterroriste boo xam ne newoon naa leen moytu leen waxu bi ngeen xool l' article 45 ak 45 1 ak 45 2 pour nga xam lu tax mu forcer groupe bi def leen ay terroriste lancer incrimination bi parce que soxlawul ñi mu jàpp ñi mu jàpp amaluñ ko njëriñ Pape Mamadou ma c' est un agent des impôts François Mancabou bi kenn mës man mii di wax kenn mësul xam ni ancien garde du corps Gakou pendant Cheikh Tidiane Gadio euh, ministre de de la justice ministre des affaires étrangères lan la nekk ak lan la joteeg waa Pastef boo xoolee ñi mu jàpp ñëpp Pastef lañ bokk militant ou sympathisant mhm. boo xoolee seen i profilu terroriste casier judiciaire vierge mhm. maniement des armes inutiles parce que bu ñu lay jàpp terrorisme dañ naan ndax da ngaa a def Afghanistan ndax da ngaa mës a dem Algérie ndax mës ngaa tukki même terroristes yi nekk fii bu ñu leen di jàpp. Mhm. ndax mës nga dem Nigéria ñoom ñëpp kenn ci ñoom amul passeport mosu ñoo génn ci dëkk bi am na ñoo xam ne sax ginnaaw Colobane xamuñu nu mu tudd ñu la bëgg a gëm ñoo ni. ils on subi un entraînement parce que terrorisme mooy lan dañoo fekk ci ñoom ay plan comme mhm. plan Cap de Biche ñu fekk ko ci ñoom ay mhm. ordinateurs sophistiqués jusqu'à présent il y a aucun le élément élément boo xam ne mën nañ la wooy terrorisme du arme du ay plan du entraînement du idéologie du organisation ab groupe WhatsApp la bu doon groupe spécial boo xam ne bu manifestation jotee mhm. comme ñoom seen groupe WhatsApp bi ñu yor dañ naan dañuy dem manifester wu suba ñaata kaar la ñuy yóbbu kan mooy gérer sandwich yi ak yooyu. Mhm. waxuma ne groupe whatsapp boo xam ne y' a peut-être cent personnes wala deux cent personnes doo ci gis dof boo xamante ni mën naa toog naan bu doon sama sago ñu dem jàpp ñii jàpp ñi mais bu ñu leen fekkoon maam mu opérationnel. Mhm. ñu fekk leen ak ay plan parce que tamit dañ wax dëgg attaqué ab réew doo ko jox ñoo xam ni boo dajalee woon seen niveau intellectuel dépassé wu ñu BFM na dem leen xool profil yi ñu jàpp ñan la avant nga koy woowee terrorisme quoi terrorisme du lu ndaw. du ay dof yoo booy yoo xamante ni ñoo nekk ci Facebook ak sur les réseaux sociaux ba pare ñu ne la cerveau bi <laughs> mooy ton te a nga nee naa la taxawaalu fee France boo demee fekk ko ci rue de Paris muy dox convoqué wu ñu ko commissariat le cerveau laa la wax mais lu tax ngeen sonn ci affaire u terrorisme loi bi dafa ni mhm. article 45 dafa créer lu ñuy wax un nouveau régime de responsabilité pénale des personne morales de droit privé muy association syndicat ak parti article 45 1 bi daal ni désormais mhm. au Sénégal désormais lu musul am loolu 2021 ngeen ko voté les associations parti politiques ak syndicats mais ba muy wax parti politique moo ko ci intéressé mhm. sont pénalement responsables association bi parti bi mhm. et pénalement responsable des infractions son pénalement responsable des infractions commises pour leur compte et par leurs organes ou représentants maanaam désormais boo amee militan ñu lakk ay def ay jëf yow nga yëg ak nga bañ a yëg yow parti bi. dañu naan yow la. déglul bu baax. Hmm. Macky Sall fi mu jëm moo tax man la yeggseegul ay deewu François bu metti nañu mais c'est le début. Hmm. li moo gën a sedd ci li muy waajal. li moo gën a sedd ñun xam nañ fi mu jëm moo tax ñu xaar ko fa. parce que li mu bëgg mooy dissoudre Pastef te boo gisee ñu leen hmm. doon torturer. ava yi lu tax lan la dañ leen a bëgg a bindal ni Pastef ngeen bokk seen nemmeeku tuur bi xaalis bi financement bi ngeen jot parce que lii mooy article 45 un nouveau partis yi sont responsables des des des pénalement responsables des des incriminations yoo xam ni seeni militant la benn hmm. mais bi gën a doy waar te ba pare lan mooy peine yi ñu teg parti bi déglul peine yi bu baax hmm. cinq un article 45 1 loi 2021 sur le terrorisme premièrement amande la amande bu 10 bu ñuy teg sa kaw hmm. beneen bi dissolution la dañuy tas parti tas parti bi troisièmement interdiction à titre définitif ou pendant cinq ans ñu interdire la quatrièmement dañu lay interdire pour une durée de cinq ans déglul de mhm. nga def appel à l'épargne publique mooy dootoo def nemmeeku tuur xam nga yii musuñu ko dégg nga xam ni kon dañoo bind loi bi spécialement pour waa PASTEF depuis mars déglul yow yëgootinoo ñu ne ay nit jàpp nañ leen sa parti lañ bokk kon yow la yow la. Mhm. ñaareel bi daan yi lay daan amende la dissolution te dootoo laaj kan moo fiy laaj épargne publique. depuis Sénégal bi mu amee léegi. parti ma kan la. yéen Pastef. Mhm. mu dem ci article quarante cinq deux lu yéeme mu ne responsable lu parti boo xam ni nguur dalaa woo nga bañ a exécuter une décision de justice wala une requête justice. dañ lay tëj loolu ku mu ko def kan moo fi bañoo na ni woon justice su ma wooyee du ma wuy ji moo tax man la loi bi da koo créer dessiné ko pour Pastef première étape ah lañ ko bind loi bi. loi bi 2021 sur 2021 article 45 1 45 2. absolument. loi bi ngi nii leer naññi. 45 1 45 2 bu njëkk bi mooy damay fexe li say militant def ma askanale ko pour mën la tas di suudur la ma teg ci ni. suñ la woowee tribunal nga woote résistance parce que dañoo tas sa parti nee na loolu dañ lay tëj amande baa ngi nii xam nga loolu kenn doful Benno Bokk Yaakaar taxul mu bind ko nee naa la lii la créer mu teg ci lan. Mhm. militariser la police jox doole GIGN ak waa BIP gis nga arme yi ñu yor tey bu ñuy def manifestation. Mhm. c'est de blende c'est des armes de guerre. Mhm. c'est des blindés la ñuy génne pour des manifestations pacifiques. maintien de l'ordre nga génne ay blindé ñun bi ñu GIGN <laughs> dañoo sax dañ ni nommé c'était tellement théâtral et folklorique ñun bi ñu njëkkee jàpp manifestation non autorisée mhm. yaa ngi wax sànq naan cinq 5 CEDEAO dañoo bàyyi ba fajar après ñu auditionné ñëpp ba pare sans nos avocats sans ñu wax ñu sax ñun lu ñu jàppee. Mhm. ñun toog na ñeenti fan xanaa ñu ñetti fan ñaari fan ñu soog a xam biir bi ñu auditionné lañ soog a xam lu ñu toppee nëbbuñu suñuy avocats ñu ñëw ñu ne ñu nekkuñu fi ñu ñuy wër ci commissariat yi. lii moo fa ne biñ ñëwee ñu auditionné ñu ba pare man xam naa ni dañoo waroon laaj avocat mais comme que vice de procédure la man ni naa noppi naa noppi du ma ko wax kenn mhm. bi ñu jàllee ba pare man ni naa bàyyi ba yëpp jeex ñu jékki-jékki avocat yi ñëw souligner ni ne yéen yoo xam ngeen auditionné nii sans leur avocat ñu bàyyi ba fajar 7 mhm. heures mhm. ñu ñëpp ñu ngi jóg leen ñëw signé ma ñëw presque maa mujjee fekk ñëpp signé ma ni ko yow lu ñu signé nii mu ne non yéen da ngeen signaler da ngeen di dem comme si dañuy bàyyi quoi. Mm-hmm. ma lire ko ni ko saa lii ay déposition nga siñe ni ñun gis nañ suñu avo wax nga ñu ne am nañ droit avocat ñu ñoo ko bëggul man fu ñu koy siñe duñ ko signé. Adama Diawara mi toog fekke na ko moom il a signé man man ko signé wu ma yow lu tax nga wax nit ñi ni euh, lii nga leen signaloo ci fajar gi liiruñu ko parce que ñu bëri jànguñu. Mm-hmm. te y' a amul jàngu ma. Mm-hmm. ñu liir li nga bind. da nga pare rek signé da nga waroon a am benn. kii bu indépendant traducteur bu indépendant. Mhm. Mm. donc nii lañ ñu def gen ñu tourné rek gis waa GIGN débarqué ak seen i kagul ay armes de guerre ay fusil d'assaut yor ci ñett ku nekk yore fii benn téye ñu mettre ñu en joue takkuñu ñu ne fuñ jëm tribunal parce que lan manifestation non autorisée mais bi ñu ko joxee GIGN il fallait draper ça benn genre dramaturgie nit ñi dañoo menacer état bi. ba mu xamee ni loolu doxul ci la ni xaaral nag group spécial bii laa doon wër parce que Ousmane Sonko ak Pastef waruñu bokk ci élection lii moo indi waxu groupe spécial boo liiree ki mujjee jàpp une femme de cinquante trois ans nga bëgg gëm loo nit ñi nii nga bëgg gëm loo nit ñi ni mhm. c'est une terroriste mais mais euh, comment euh, comment est-ce qu'on de groupe spécial à force spéciale non moom ñoom lañ koy laaj man nee naa la am na ñu ma ci wax dama ni leen. Mhm. am na ñu ma dégg ñu ngi leen di wër. ma ni leen dem leen ngeen rendre parce que ci rey leen lañ jëm parce que problème bii mu nekk nii il va essayer ni dañ leen doon jàpp ngeen bañ ils vont vous parce que moom dugg na ba pare Macky Sall xam na ni il a franchi un cap troisième mandat bi ñëw na mënatuma reculer te loolu moo gën a bon ci nguur mooy boo demee ba commencer franchir yenn cap yi da nga naan naa ko def ta dee du reculer sur le groupe terroriste là dontalee xam na ni Akhenaton nee naa la Akhenaton léegi boo ko woon téléphone mu ne la allo mës nga gis terroriste bu jar nga tëj onze rey kenn dawloo ki ci des supposé jusqu'à présent biñ nee la kooku Pape ma du c'est un nagent des impôts et domaines. Hmm. Euh, justement avant avant ñuy ñuy ñuy ñuy àggal ak Pape Mamadou Seck ma daaneel ko foofu rek. expliqué waat nit ñi nii hmm. waxu group terroriste bi but bi lenn kese la benn. justifier les interdictions de manifestation ndax léegi euh, préfet yëpp loolu lañ jël risque d'infiltration de la manifestation benn boobu moo bees moom moo tax kenn mënatul manifester ñaareel bi fexe ba askanale ñi mu jàpp ñu bokk waa Pastef hmm. ni leen li ngeen def léegi parti bi moo pénalement responsable conformément à la nouvelle loi terroriste ñu tas parti bi troisième ko tas ko bañ ñu def appel public à l'épargne comme suñu nemmeeku tour ak bokk naa yi ñuy def hmm. troisième étape bi nag nekk bu ma ko defee ba pare soo ko bis bu jógatee ne appel à résistance dañ koy tëj. dañ koy tëj yoonu tëj parti. d'accord alors moo indi affaire va faire bala ñu ko ne ci force spéciale ak ñi ko composé nañ déglu Issa explication yi nga xam ne moom la ci euh, euh, kan la sax. le colonel Jean Bertrand Bocandé ñu fàttali ne moom moo jiite administration pénitentiaire bu Sénégal muy ñi hmm. nga xam ne ñooy euh, yore kaaraange kaso yu nekk ci réew mi. le le vingt le vingt le vingt neuf juin lañ ko placé sous sous mandat dépôt pour Rebeuss moom nag ba mu yegsee euh, ñu examiner ko.